ni maslaha mu'tabara maanaam njariñ loo xamante ni l'islam reconnaître na kii lii njariñ la wala intérêt public la yan mooy jumtuwaayu solidarité loolu moo ñuy permettre ñu dugal asaka solidarité bëri na ay jumtuwaay ndax wax nañ que ni solidarité lu lamboo sumool la te aalam yi la waaye ñun bi ci intéressé comme jumtuwaay moom mooy l'institution bi nga xam mooy asaka asaka mën nañu jàpp ni moom mooy instrument de solidarité wala su la neexee nga ni institution de solidarité bu lislaam bi gën a am solo doy na ci firnde que ni asaka mooy ñetteelu ponk lislaam xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanu lahum yoon salaa salaam ni buniyal islaamu ala xamsin tabax noonu lislaam ci juróomi ponk mel ni kon juróom yooyu bu ci manqué rek su lislaam nekkoon ab mbaar mbaar mi day daanu bi mu limee shahadat an laa ilaha illa allah iqaamu salaa la mu ci teg moom mooy itaawu zakat joxe azaka kon azaka wàccuwaayam ci biir lislaam maanaam fu am solo la fu dëgër la moo tax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna am ci arab yi ñoo xamante ni am na ñu ko mën a firé par pour des raisons ni ñoom dootuñu joxe azaka ala ala kulli xaal ki nga xam moo fi teewal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na politique lal na ko comme aussi dégg bu gàtt mën na koo lal ndaxte ñoom li ko firndeel yi mooy aay bi faratal azaka dafa ni xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum xuz yow yonent bi ñu jàpp ni kon comme yent bi nekkatu fi kurul moom duñ ko jox asaka alors que course boobu nga xamante ni ci la yàlla doon wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi doon wax ak moom pas en sa capacité de prophète mais en sa capacité de chef de l'État moo tax Abu Bakr waxoon waxam ju rëy jooju nii wallahi la na man farraqa bayna alsolaati wa zakat wallahi law manauni iqaala bairin kaanu yuadduunaha ila rasulillahi la qaataltuhum alayhi mu giñ ni fekkoon tënk boo xamante ni dañ ko doon tënk gëléem mu ñu war ko génne comme asaka jox ko yenn salaa salaam fekkoon tey bañal nan ma ko dinaa leen dinaa xeex ak ñoom ngir loolu kon fekkee ak deret jullit ni mu ni mu amee solo ni mu ñoŋee jaral na ku toll ni xalifa yan salaa di si si sumb ab xeex loolu day wane ni kon loolu ponk bu rëy la boo xamante ni jar naa bàyyi xel. pour wane efficacité bi nga xamante ni moom la azaka am comme instrument de solidarité mën nañ dellu si l'histoire comme aussi mën na ñëw si jamono ji. suñ delloo ci l'histoire asaka demoon na ba li nga xam ne moom la ñuy muy ñàkk mu effacé ko ci gox bu ñuy tuddee yaman ci jamono yi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ndaxte gouverneur bi jékki-jékki woon na indil ko alal ju bëri Omar laaj ko lu tax lii parce que normalement li nga xamante ni moom la charia wax mooy asaka dañ koy séddale fan koy jëlee kon moom warul woon jëlee asaka Yemen di ko indil waa waa Medina mais si la ko gouverneur bi waxale ni en foofu amatul pauvre ku ñàkk wala koo xam ne yeyoon na asaka ku des ci dëkk ba moo tax ñu indi ko kon foofu maanaam asaka def na liggéeyam ba nga xamante ni ñooñu soxlaatunu koo xamante ni wala soxlaatunu jël asaka loolu ci benn tolloog moins de 10 ans wala moins de 20 ans bi ñu farataalee asset ak léegi ak ak jooju ak jamono jooju mais duñ ci tegee lu tolloog téeméeri at ci umma bi yëpp kay dem nañ ba kuy soxla asaka amatu fa mooy jamono yu Umar ibn Abdul Aziz asaka defoon na liggéeyam ba nga xamante ni ku ñàkk amatu fa koo xamante ni bor am na bor ba bor bi sonal ko amatu fa ñii soog a tub dugg lislaam te soxla ku leen jàppale amatu fa ibnu sabil amatu soxla ku ko dimbali amatu fa et cetera loolu doy nag ci firnde pour wane ni asaka mooy instrument bi gën a mag bi gën a efficace pour la solidarité dans le cadre islamique sunu jamono ji gis nañ ko ni jullit ñi bokk na si ñi gën a wala réewu jullit ñi réew yu gën a ndóol am na ay ay statistiques yi koy wone waaye ay borom xam-xam yoo xamante ni bokk na ci ku tudd Shiraz te muy liggéey fële si banque mon banque islamique développement def na ay gëstu di jéem a natt azaka fekkoon tey dajale woon nan ko comme ni ko war a dajalee séddale ko comme ni ko war a séddalee ban effet la war a mën a am ci ñàkk gi nga xamante ni moom la dëkk jullit ñi di ñàkk la mu gis ci jàngat boobu mooy suñ ko defoon day li ëpp ci dëkk jullit ñi dinañ génn ci ñàkk waaye non seulement dinañ génn ci ñàkk mais dinañ am lu doy loo xamante ni nan mën a jàppale yeneen dëkk yi nga xamante ni mënuñoo réaliser autosuffisance wala mënuñu éradiquer pauvreté ba nga xamante ni ci umma bi yëpp kay ñàkk dootu fi amati loolu mu ngi ko def mu ngi ko génnee euh, étude boobu en 2014 ci gàttal kon mu wane ni su fekkoon ci dëkk aussi yi génne nañu asaka comme ni ñu ko waroon génnee séddale ko comme ni ñu ko waroon séddalee ñàkk dafay jeex ci biir dëkk jullit ñi kon loolu day na firnde ci histoire comme aussi si jamono yi tey jii comme quoi asaka mooy instrument de lutte contre la pauvreté bi nga xamante moo gën a efficace ñun Sénégal war na nañu yitteel affaire bu euh, mbiru asaka bi parce que ñun ci étude boo xamante ni def nañ ko euh, te banque islamique développement euh, subvention woon ko ñu ànd ci ak sunu rak Abdoulaye Mbow ak Abdoulaye Lam ñu ngi leen di gis ci salle bi ak beneen soxna bu jógee Mauritanie. te euh, ñu ngi si remercier en même temps sëñ Xaadim gis nañu ay données ay ay ay études yoo xamante ni wala ay ay résultat yoo xamante ni ci wàll pauvreté bi nu xoolee ba données banque mondiale que bi mu ngi toll diggante 46 à 38 pour cent en d'autres terme su fekkee tey jël nga population les 14 million sénégalais. mën nga jàpp ni li ko tollook fanweer ak juróom-ñett ba ñeen fukk ak juróom-benn ñëpp li ñuy tuddee pauvre lañu maanaam ñoo xamante ni dañoo ñàkk kon loolu nekk loo xamante ni lu doy kiimaan la parce que kaanal faqru an yakuuna kufran lan moo ñëw ci asar bi maanaam nit ñu bari ñu ngi tàbbi ci yenn mbir yi te loolu lu koy waral doo ko xoolee ñàkk kon loolu jar a saytu la te wax nañ sànq efficacité bi bu ñu xoolee ni séddale alal biir séddale soo séddale woon population sénégalaise ci juróomi xaaj xaaj bi nga xam ne ñoo ëpp alal ñoom lanu lanu lanu séddoo ci alalu réew mi toll na ci 46 virgule 9 pour cent maanaam soo séddale woon xaalis Sénégal def ko téeméeri xaaj ñaar fukk yi nga xamante ñoo ci ëpple ñoo am juróom euh, ñeent fukk ñeent fukk ak juróom benn ñeneen ñi ci des di séddoo maanaam juróom fukk ak yi nga xam juróom fukk ak ñett yi nga xam ñoo ci tegu ña gën a ñàkk ci biir population bi maanaam euh, soo xaajee population bi juróomi xaaj xaaj bi nga xam ñoo ci gën a ndóol ñooñu la ñu am ci richesse bi mu ngi tolloog 6 pour cent donc nga xam ne soo séddale woon àll ji téeméer ñoom juróom-benn rek lañ ci am. kon loolu aussi day wane ak gëllu góose goo xamante ni séddale bi am na ko te loolu wuute ak jubluwaayu lislaam ci séddalewu alal ndaxte bi mu waxee. fay u ni ñu ko war a utiliser dafa ni kay laa yakuuna doolatan baynal agniyaay ko maanaam alal ji yem ci ñi am rek loolu dafa nekk loo xamante ni lislaam xemme ma ko bëgg ko moo tax kon comme situation bi nii la mel Sénégal war na xool war na xool naka la ñu mën a euh, utiliser azaka maanaam pour éradiquer pauvreté bi mais pour wàññi aussi euh, ñàkk tolloo la gi nga xamante ni am na ci biir réew mi ci lu gaaw ñu ñu ñëw ci yenn njariñ yoo xamante ni asaka am na ko te loolu la ca gën a gaaw rek mooy dellu ci alxuraan bu njëkk bi mooy aaye bi nga xam ne moom la soxna si doon jàng sànq pay gi nga xamante ni kuy joxe fii sabilillah dina ko am et surtout kuy joxe asaka dina ko am ziyaaratul wa mudaafatul ajri wa sawaab lil muzakki yàlla ni matalu ladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka matali xabatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu xabba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñàkk dafa amoon nit ñi soxla am benn caravane benn jëgg goo xamante ni Ousmane ak moom jóge ci Cham walla ci dëkk yi ni mel Medina yëngu ndax Ousmane macha allah yàlla da ko mayoon commerçant yi peut-être grossistes yi wala demi grossistes yi commencé dag dogale li nga xam ne mooy njëgg mi kii di fay man tegal naa la si 10 pour cent kii dafay tegal naa la si 50 pour cent te cent pour cent mu ni ana kan moo may tegal 1000 pour cent maanaam loo xamante man euh, dërëm laa ko laa ko jëndee nga nga nga jënd ko ci man fukk ah kan jógul mu ni man gis naa. koo xamante nag nangu na maa defal loolu mu yàlla subhanahu wa taala parce que nee na bépp boo jox bépp mbir boo joxee rek bépp dërëm boo joxe gën gaa néew di nga ci am 10 pour cent te aay bi li mu wax mooy mën naa àgg ba 700 700 000 pour cent maanaam dërëm boo joxe ñu fay res juróom-ñaar téeméer mooy mooy firi aay boobu nga xam dafa ni fekkee. joxe nga sa sa alal ci yoonu yàlla mu ngi mel ni yaa ngi ji benn pepp pepp boobu nga juy benn la waaye dina dina meññ juróom-ñaari gub ca gub gu nekk dina am téeméeri pepp kon soo multiplier 7 par par 100 mu jox la 700 ci loo xamee ne cosaan ni 1 pour 1 la woon kon loolu li koy mën a joxe moom mooy al infaq fi sabilillah joxe ci yoonu yàlla kon loolu mooy njariñ lu njëkk li ñaareel bi mooy joxe asaka day fegal ki koy joxe safara fa andartukum naaran taladda laa yaslaaha illa al ashqa alladi wa tawalla wa sa yujannabu al atqa alladi yuti maalahu yatadakka foofu yàlla di wan ni ki nga xamante dafay joxe asaka yàlla dina ko musal ci sawara woowu nga xamante ni dafay takk te nekk alaaxira yàlla na si yàlla musal yonent bi nii man istataa an yattaqi naara walaw bi shiqqi tamra fal yafalhu wax ma la asaka mais fekkee sax yàlla mënula mën la wula nga mën a joxe asaka même fekkee am nga as tàndarma moom rek nga am nee na bul bul yéem xaaj tàndarma bi ñaari xaaj jël benn bi lekk ko benn bi nga joxe ko asaka ndaxte loolu war na la mën a fegal safara kar yomal xiyam kon loolu di wane ni asaka bokk na ci mooy yi nga xamante ni maanaam day fegal nit ki safara bokk na ci ñetteelu njariñ li taxliisul muzakki min aafati soxi wal wa xubbil maal day musal kiy joxe gàkk gàkku nay ak bëgg alal soxu dafa ni ñu ko mën a firee mooy lépp loo xam ne daf lay gàllankoor pour nga jëf lu baax kon moo gën a yaatu buxlu boxlu mooy li lay gàllankoor ba doo joxe sa alal waaye sox moom lépp loo xamante ni lu baax la rek daf lay gàllankoor sa diggante ak moom moo tax yàlla ni bokk na condition yi nga xamante ni il faut que nit ki réunir ko pour mu texe mooy mu fegal ñu fegal ko soxu bakkanam wa man yuqa soxa nafsihi fa ulaayika humul muflixoon pour que nit ki bokk si ñi nga xam ne dañuy texe laa budda yàlla musal ko si cox boobu te sànq wax nañ que ni objectif bi ñu wax ci azaka mooy tutahiruhum wa tuzakkihim biha asaka balaa moo ñëw ci wàllu économie di di regle problème économique yi ak problème sociaux yi dafay régler d'abord bakkanu doomu aadama feebar yi nga xamante ni moo nekk ci feebaru euh, maanaam bakkanu doomu aadama te ba si njëkk moom mooy asaxo moo tax xadis bi wax ni iyaakum wa saxu fa innama ahlaka man kaana qabluhum qablakum fa euh, inama halaka man kaana qablakum bi suxi amarahum bil buxli fa baxalu aw fa baxilu wa amarahum bil qatiyaati fa qataawu wa amarahum bil fujuuri fa fajaru mu ni maytu leen suxu ndaxte suxu moo alak ña leen jiitu woon daf leen soxo boobu daf leen puus ba ñu nay daf leen digal ñu nay ci waxin ñu nay mu digal leen ñu dogu mbokk ñu dogu mbokk mu digal leen ak kàccoor ñu kàccoor kon soxo boobu maanaam feebar la bu rëy boo xamante ni dafay jur ay jàngoro yu bari nee na nag bokk na ci daa wala maanaam saafara yi nga xam ne nga koy utiliser ba mucc ci soxo boobu moom mooy joxe asaka ñeenteel bi mooy sooy joxe asaka da ngay tàmm da ngay mujj tàmm àgg ci daraja yi ak sukkuru te xam ngeen que ni dara yi sukkuru bokk na ci daraja yi gën a kawe ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala yàlla nee na wa in tauddu laa la tuhsuha soo soo leen doon jéem a wàññ xiiwal ya yàlla jox nee na doon ko mën a doon ko mën a wane bañ waaye mu wax ni la in shakartum la azidannakum fekkee nag dem nga ba identifier lii xéwalu yàlla la soo ko santee yàlla dina la dool bi maanaam xéwal googu nga xamante ni moom la lu joxoon kon ñu war a xam lan mooy sant est-ce que alhamdulilah rek sant la. nee na al sant yamul ci alhamdulilahi rek ndaxte xiiwal bu nekk ak xeetu xam-xam wala ak xeetu maanaam sant bu muy ngoog moom ka nga xamante ni yàlla da koo may xam-xam xéewal bi nga xamante ni euh, moom la moom may xam-xam boobu na ma koy sante day wuuteeg koo xam ne yàlla da ko may alal moo tax ku nu may alal lanu gën a xaar ci moom moom mooy al infaq fi sabilillah waaye ka ñu may xam-xam lanu gën a xaar ci moom mooy mu saa defe xam-xam boobu ba pare di ko wesaare biir jaam yi moo tax kon fekkee nit ki mi ngi joxe azaka day sant xiiwal boobu nga xamante ni moom la ko yàlla def muy alal ji ko yàlla chaque at 100000 francs wala ñenn ñi 20000 francs wala ñenn ñi sax 300000 francs mën na ko bañ jariñ dara parce que daf koy consommer déwén mu ñëwaat ñu ñu joxaat ko mu consommer waat ko kon kooku ci ndóol gi rek lay dëkk mais su fekkee jox nañ ko asaka ci anam boo xamante ni dina am capacité dina am possibilité muy mën a nekk kuy produire kuy liggéey alal kooku non seulement dina génn ci ndóol mais dina mujj bokk ci ñi nga xamante dañuy joxe asaka moo tax mutualisation mooy permettre nit ki àgg foofu Eh, te eh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa daan wax ni soo leen di joxe ida awtu axnaw maanaam soo leen joxee na ngeen woomal ki ngeen jox ba nga xamante moom ëllëg dootul ñëwati di sàkku beneen recommandation mujj moom mooy communication bi parce que nit ñi des nañ ko xam Sénégal ba tax na kon dafay jar maanaam euh, campagne de communication boo xam ne bu yaatu la pour nit ñi xam njariñu asaka waru garam ak li nga xamante ni asaka mën na ko jur ci jàmm ak ak ñàkk ak ñàkk ak xeex ndóol ci biir réew mi te loolu nag pour mën a am il faut mu am euh, dajaloo ci organisme yi nga xamante ni ñoom ñooy dajale asaka kon euh, lii daal mooy li nga xamante ni bëgg nañ ko indi lépp loo xamante ni jub na ci yàlla la subhanahu wa lépp loo xamante ni dëng na ci ñun la aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li